salaamaaleykum gaay yi salaamaaleykum gars yi photo bii ngeen di gis léegi léegi la hôtel Sidi Diop léegi léegi léegi léegi yàgg naa fa ndax après ba histoire bi amee tey dañ doon fubal ma demoon fa dase faak Sidi Diop ba Sidi dugal bii dem ma ko ne ma rakk ma ñëw waxtaan ak man ne ma jaaral otel ba ma am lu ma la dénk ay kàddu dem naa hôtel ba nag mu def yëfu kilifa teg nday njaay baan yaa teg ma ñu waxtaan yaa ngi dégg mu wax ma lu rafet. nday jaay bànn yaa paas na ma yaayam paas na ma papaam waxtaan na ak ñoom ñu nekk ay nit ñu baax seedeel nday jaay bànn yaa lu baax seedeel ko lu rafet Sadio ngi nii si mbukat taxaw ñoo àndoon seddal ko lu rafet man ñu ne ma lu jàppoon bàyyi nan ko papaam gis ma ree barki alxuraanu karim nday jaay bànn yaa bu ñëwee Europe dafa war a am ndam warta ñibbi ñu koy xoolee beneen image parce que ndamu Sidi Diop wala ndamu nday jaay bànn yaa ndamu Sénégal gi yëpp la comprendre man c'est su ma meree du ma contrôler parents yi mais bu ma yeggee dama ko xool ma xool Ndeye Ndiaye xool sama yaram daw ma xoolaat ko sama yaram daw ma xoolaat ko sama yaram daw ma ne ko Ndeye Ndiaye yow moom bis na ka tey di nga am jàmm bàyyi naa lépp mu sedd lépp loo ma jàppaloon si loo xamante si nii danga ma ko denkal sa xol maa ngi la koy jéggalu parce que ba ma waxee ak yaayam wax ak papam laa xam ne Ndeye Ndiaye bànn yaa mii nekkee nit gënu ko quoi nit ku baax la erreur day am erreur est humaine billaahi te ñi nga xam ne nii nag ñoom ñooy ay noonam nan ko mooy ak ñi nga xam ne dañuy wax nday njaay fii day génn fee day taxawaalu fee yónnee ojo fii wax fee ngir yàlla ak war a nan bàyyi nday njaay mu liggéey doxal doxalam moom nee na boobu ba tey mi ngi toog toogam nekk ci otelam nekk ci liggéeyam génnul demul fenn yaa ngi dégg man nag wax naa ko lépp maa ngi la koy tuubal yaa ngi dégg di la ko jéggalu parce que jigéen la te man xool naa ko sama yaram daw na yaayam ba mu waxee sama yaram dafa daw papam wax sama yaram daw ne ma ñun sunu doom nga ñun aadama ma ne doomu jàmmoon nga sunu doom nga Sidi Diop def yëfu kilifa ñu toog fa Sidi teg ñu teg saajo waxtaan ak man Sidi wax ak man ay kàddu yu am solo yëfu kilifa la def Sidi Diop waaw nday jaay baat yaa nag bis na nga tey incha allah di nga am jàmm showbiz showbiz la mais bu lépp jàllee ay frère lan ay sœur lan waaw Sadio loo ci wax. waaw ginnaaw ay jàmm après la pluie c'est le beau temps nday jaay baat na la nekk ci yoonam ñëw fii wa war fay yóbbu jële ndam. buy dellu Sénégal it dafa war a yóbbu ndam te incha allahu rabbi